kon ñu fas yéene jambar jambar ji nga xamanteni mo ñu fekk lu kenn mënul mu def ko te fekk li ko waral moy Serigne Touba def bam mu def ni amna ci mom yaakar yaakar serigne bobé du mënen serigne blad dama déggay waxam mo ne man dama gontu bëgg a ñi xëyoon kon nak aat ndi ko waruma xasi dégg nak mom la ko tuddi non bismillah ma man ñàkk jaaxaan ndaxte daa xëyuloon te gaa xëy nag mu dab leen romb leen njëkk leen lu kenn nit musa def Cheikh Abdou Lahad ko def du nit ku ñuul du ko weex duy wàllu yoo ko yoneen loolaa di lan moo di nit ñi ñëpp bàyyi lu bon te xam ni moo ko fi jëf bàyyi laat bëggul waxi neen doo dox lu mat kilomètre ci réew yëpp ci di gisuloo nit ku tux ab maal boro wala pon mbaa sax mu mànn ci ñollam mbaa mu naan fi sëng mbaa sax mu log fii pion ka dox di raab fële boon Cheikh Abdoulaat bale Touba dàq lépp lu bon sellal dëkkam bii ko bàyyam dénk génn fi xiin ak i tamaa sabar ak fecc xeeti misik te wuuf rakkam yi di faj seen aajo teg nu ci yoon ma wax la tuuti ci ak soppam sëriñ bi nga xam ni ab kemam amagul fii nag amul ci feneen kenn mësul laaj milliard ak genn wàllu mat ci fukki fan te sa doom benn dërëm du ca fóon diiru li muy dund doomam jenn nag yiliful benn tabax mbaa teeraas mbaa ceebu yàpp bu niin kii xam nga xoolul njabootam bàyyi tool bi mu booy koo gis demul soxna yaa ak doomam ya ñoo ko dogoon kenn mësul gis nit ku jël rakkam ya def ko rakk te rakk yépp la jël teg leen ca kaw difi leen moo njëkk a jox doomi sëñ Tuubaa yi dund bu doy te musul def dara it loo xam ne wóoyuwu leen mag ñi daroon sëñ bi tam ñoom ñëpp sant nañu jigéen ñu baax ñi di waa barsàq fàttewu leen ñun ñi di sàmba sogum gayis it ciru nan am nan ci bàyyi laat danaa téere nag yu mu doon dafa bi jóge ñëw wax ñett waman hunna waman kum ma xaw ne ñu xamul lu mu doon mun leen dañu la jàngale du ñu am ñi takk wax na du gën a may seen def loolu moo tax waman hunna waman lahumoo la naar ba xam lu yi ma ñëw firi leen lahunna mooy jànq ji ñàkk yi jëkkër bëgg sëy gis nit ku may ñeen fukki jànq jëkkër ci genn ngoon teg cee berndee leen fajar ba ca ngoon ci ma su ko mas a gisee Sëriñ Tuubaa dafa am fukk ak ñaar yu mu fukk ak ñaar yëpp ci ci jamono seen bilaat ñaar yoo xam Sëriñ Tuubaa ko bëggoon ma wax la fukk ak ñaar nag yi ci ayam ci fii di Tuubaa mu doon ay ndam yu sëñ bi bëggoon caagaayam kat la doom yi bi ràññiku fis lu jiitu muy jiite ñaara ñett ñoo ci fisoon caagaayam it la Touba set ci lépp lu bon lu jiitu muy jiite Touba ak Kayaar yamoon caagaayam la sëriñ Touba di am file kër lu jiitu jiite mbaarum sëñ bi sax amuloon caagaayam it la daaray kaamil it soo ko am lu jiitu muy jiite gaalug sëñ bi moo fi amoon ceeg ayam it la Touba yokk wàllu gu ne lu jiitu muy jiite Touba ëppaloon ci rongeen ceeg ayam lanu am korniis ak i autoroute lu jiitu muy jiite yoon yi yëpp ñal la woon ceeg ayam it la waa barsàq sant bu wér lu jiitu muy jiitu waa barsàq sant ñu woon caagaayam la jumaa ji yokku neex a jullee lu jiitu muy jiite jullee fii lu métti la woon caagaayam it la moodu moodu yokku bu wér lu jiitu muy jiite gëm beeg ko dewaar a xewoon caagaayam it la ceebub jënd daj fu nekkat lu jiitu muy jiite ay benn yu néew la fi woon caagaayam it la sëri sëñ bi jëpp aji lu jiitu muy jiite aslim nag su tuut la fi woon caag ayam it la forage yi di dem ba fukk lu jiitu muy jiite ab forage la dëru ma naan te kat bu forage yee paanoon tuur da koy xaw a yëg forage su bàyyi laat bu paanaa tuur dafay mën a naan ma wax tey xikam yi bàyyi laat nga yéemu ci tey nga xam ne luqmaanu haasal haas rek la woon suñu laat ay xikamam nit bi jëkkee mooy dani ku bañ ku bañ ñett bul am ñett ku ko la yàpp bul am soxna ko bañ ko la bañ ku la bañ bu ni diw sama jaama ko bañ say wax dañ bu say mag bu say bu say do mag bu say do magge ñet taw ngay am taw bo waxe ñu weddi ko su ëllëgee ñu ne ah ki ga day def bisul mu xuloo doom yi kon moo jubul su ko defee gone ya, lu wax ñu weddi ko kon nee ko ñet bu am ñet ne yett mom ku ko bañ yett ngi ni bu ko am moy jam jabar dom bu ngeen teeloo ma teqalil leen ko bañ ko lay bañ debul am jam ku bañ ko la yeb bu jabar ku sa wax sax doom yi

ka ban neex nakar am xel di seddel len ban dama dama ak bahima ak malaka neen yett ñi ni malaka am xel waye amul neex amul nakar malaka ma nek sawara ak ma nek ajana fi ni ñoo bokk ban neex bu ñu ñom ñoom amuñ naqar amuñ neex bahima ne mom am nakar neex am nakar waye amul xel doomu aadama nak am na ñett yëpp nee doma doomu aadama mom? su fekkente ne daa topp bànnee xam moog bahima yam in humoo ilaa kal anhaami bahima ñu yam su fekkee topp na eh, am xelam nag mën naa dem ba kawe malaaka wa antumul ahlaw na moo tax man ne yàlla daa bind yett dellu sàkk yett fab yett def ko ci ñaar déglul ma ràññale leen mooy doomu aadama ak bahima ak malaayikatu mu sàkk bànneex naqar am xel te séddale leen bahima am na naqar bànneex te ñàkk na xel malaaka am xel te bànneexi naqar amu leen moom doomu aadama moom kat yetti yépp la am ngir am na xel naqar ak bànneex de boole na leen tey bàyyi maa ngi ci suuf malaaka nekk ca kaw day toog fi suuf mbaa mu jóg jëm kaw du jekki feneen nit da bu toppee ca bànneexam ba bàyyi ma la ca am xelam mën na caa dab ñee ba far kawe leen danaa fi tàbbal waxi sëriñ Basiiru ba tey ñoo bokk bàyyi bokk am xel sëñ bi sédd na leen sëñ Basiru nee na ñaari raay yi day li ñu jur mooy ñaari raay yi rek ku rëy ku ne day rëccu ku reew ku ne day rus sëriñ Basiru da daa wax ñaari raay ñi ngi nii te seeni doom ñaari raay yi rek rek la doon rëy rëccu réew rus ma yokkaat miim ci wax ji man muñ mucc lii daal la sëñ si waxoon léegi ndam yi xel mën a sàcc yi root nde am na yeneen yoo xam ne néexu la root ngir mbóot mu biir la woon bisub juddoom la sëriñ Tuubaa de wax ne dama yaakaar ci moom xam nga nag yaakaari sëñ bi du neen li tax mu jëf nag lu taa jëf wax lu kenn waxul moo yegg yeggale ñim àndal te xettali leen bu yàlla dee fay jëfi nit nag ci nit lima ma xam sëñ sii di miyee ki lab nañ ci lim fi jëfoon gannaaw dafay xettaliw jaambur ak i dëkkandoom kon doom yi ak soxna yeeg dongaam yi kenn waxu leen mat la bu fam sëy ni li mu moom de moo di mbiram ngir ñag na tuubaa jagal tuubaa ba kenn yebu leen murit gi fu mu àgg tey jii nag ci réew tubaab bàyyi laat de jëf na ca kem kàttan te dimbal leen bàyyi laat de mooy ñàkki caaxaan dëgg rek la bëggoon ki nekk buur ak ki doon baadoola xamewu leen ne moom saxaar la ci ab raay rek lay mën a dox te raay bi mooy jaamu yàlla ak jëf li sëñ bi bëggoon moo tax boo ci dikkee di fecc rek sa këram bàyyi laat ni waaja li ngay def lan nga jublu ci woon daa am ku ñëw di fecc ci kanamam sëñ bi laa ne ko li ngay def la jublu mu ne ko dama bég rek mu ne ko ab julli daal fi mën a béggee mooy bu ñu attee jaam yi nga jéggi siraat jëm àjjana foofee la fecc xaj waaye fecc moo xam ne gàccaay cay topp bu amul njariñ ni ba ku ba dem ba am sa ñetti fan ci sa bàmmeel da nga xam ne mag du waja jo xam da fay feñal mbégi mum beg moo tax ba fecc li rek moy li am du lenen serigne bi wax ko ne boo faatoo ba am ñetti fan nga xamni ni mag fa du fecc tel na ci yeen man abdullah di juba lay def dama bëgg dem ku bëgg dem na nga tek say tank tek ko ci yoon mbolam li nit ñi di sabbal yalla ak di sikar ak limbu tolli ni ak asaman yalla nako ko bi soppi yalla nako bor bi soppi mu di ak yi ci aljana jox ko laat jox ko junni yeneen ci daraja yi ngën ji mbindéef ak sëriñ bi le ak mboolem ku xëy mas di ñaan ci yàlla buur bi amin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ah, bi mu defee li tax sëñ Abdu def lii mu def te it mbir moo xamante ni ah, mbir mu yéeme la mooy ku bëgg a dem da ngay ànd ak say bokk waaw mii bokk gi fuñ fi soxlaa suñ ko woo mu dikk def ci lam ci def kon nag fii ne jotaay boo xamante ne may waxtaan mbooloo ma dañ fa daje li ko waral mooy dafa ànd ak i bokkam doon taalib boo xam ne dafa bëgg xasida yi ba ñu tuddee ko sëriñ Basiru tuddee xasida ñu bari mënuñu ko waaye ndax bu ñu waxee tudd ñu ko kon nag ku bëgg dem da lii mooy xasida njëkk gi ah, geneen xasida gi nag sëñ Bilal li tax mën a dem mooy bu mu jikkee dafa ànd ak i bokkam Cheikh Abdou Khadir mi nga xamante ni ñoom ñaari juróom-ñeent eh, weer lañ daaxante nga xam ne ñoo ay seex lañ dafa dikk jël lépp jox ko ndax Moussa bi mu bëggee liggéey dafa ko yàlla ni damaa bëgg boole maag Haaruna mii kat ndax mu mën maa dimbali sëñ bi laat ni sëñ bi xarit boole ko mën ko dimbali waaye dafa diine jëpp sax ni ko jëlal diine jàngoo ngir bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa moom nee na nekk taalibu sëñ Tuubaa laa bëgg dangay ñëw ne ko ah, maa ngi lay ñaan de nga am ma yàlla mu ne ma ngërëma sëñ moom ngërëma seigne touba la bëgg ndax nee na ngërëma suñ tuwaa boo ko de da nga am ngërëmal yonent bi ak yalla ndax kat ngërëma suñ tuwaa li tax mu reuy seigne bay jaxate da am bis mu ñew seigne touba ni ko mbay jaxate mu ne am sant leen yàlla mu ne ko ne dañu lay sant baaxa baax mu dégg seigne touba dikkaat ni ko mbay jaxate mu ne am sant leen ma yalla wax mu ne ko mbàkke ñi lay sant baaxa baax mu wax ko ba mi ñetti yoon seigne bi ni ko anam mbay jaxate da nga wax li nga wax mu ne ko man de dama am baye am maam am sama bopp sama bàyyi sama maam bi fi nekk nekk nañ fa yàlla te lii ma am umu ko kon yow mi dem ci yàlla gi yow lay sant suñ bi ne ko bu naar bu ñëpp xamoon naar ba fi indi xorom si day lépp jàppandi kon nag suñu suñu suñu blaat ne foofee la tax moom mu ngërëmu suñ tubaab moom suñu bu xadir nag ñii ñaari seex lañu lu ñu defaa ñooy ànd ko lu yàlla ak yoneen beeg suñ bi bëgg ñu indi ko ñoo jàpp saytaane ci tuubaa ñadd ko ni ko deq rey te lu yàlla bañ dañu dindi ko Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdou Khadir gopp rek la ak ëllëer Cheikh Bamba jàpp ca saytu ko ànd Moussa ak Haaruna bee ak bub na bii béeg Babacar bee ànd ñëw duglu ko Cheikh Bamba bég na ci ànd bii ndax ànd bii la bëggoon ñu toog toog nañ ci la bëgg am na ko téeméeri at lañu am ci ren miladiya 914 2014 kaay wàññi ko téeméeri jëf lañ jëf ci Touba ak yeneen yoo xam ni yii yoo xam ni yii yiñ bëggoon la ñu jox na ko daay njëkk seeni jagle nag soog leen a wax lañ jëf ci Tuubaa lañ jëf damay cof cooce téeméer tudd ko dañu am ci ay jagle sëñ Abdu Lahat daa am ci Sëriñ Tuubaa jagle goo xam ni moom dong am sëñ Abdu Xaadir am ci bi jagle goo xam ni moom dong am sëñ Abdu Lahat at yi mu dund ak at yi sëñ Tuubaa dund ñoo tolloo sëñ Abdu Lahat waajuram Mariama la tudd sëñ Tuubaa waajuram tudd Mariama Cheikh Abdou Khadir li mu def ci sunna dégguñ kenn ku ko jëf Cheikh Abdou Khadir waajuram tudd Aminatu si yonte bi yon waajuram tudd Aminatu kon ñoom dañoo am jagle ba ñu daal di feeñ sëñ Tuubaa leen defal loolu am nañ ci yeneen jagle yooyu kii moo ko am kee am ca sëñ bi jagle yooyu kenn amti ko Cheikh Abdoulaat at yi mu am ak Cheikhul Khadim lim baa yemoo mag ñee ko wax ñoo fekke ko Cheikh Bamba it nag waajuram Mariama la cheikh abdoulaat waajur wa mariama gis nga ko cheikh abdou xaadir it su na si yonent bii moo man ci tool bii kenn nit de du weddi ko yeneen ba waajurum it ba tey mooy amina cheikh abdou xaadir aminaat moo meññi ko cheikh bamba wax cheikh abdoulaat ci bisub ganeem moom addinaam muy wax ju rëy ku ne dégg ko muy la waxoon gan gi dama yaakaar ci moom yaakaari sëñ bii nag du tas ku ne xam na ko Cheikh Abdou Khadir bis ba muy feeñ sëñ bi wax maam Thierno yow mii koo dajeel dañu ramm ko moo tax ku faatu ñu woo ko ngir mu jullee ko ndax mu amum ramam ku juddóot ñu woo ko mu tudd ko waccal wasiir yi muy mii Cheikh Abdoulaat nam def rakkam ji faw xa ko usdud bihi asri wa asri ko amriya Cheikh Abdou Fab far mbir diine yi xëpp ko ni ko diine ji loo ciy xalaat rek na ko def du def lu dul di ca sant ndax yow xam nga ko fulku sarexati déqi feey kenn dutu lab fulkul xaqiqati déqi ñoom ñaar saytu ko li taxoon mu fab mbiri diine ji nag jox ko ko tool bee taxoon te koy setal moom war na ko ngir maskani salli minal fu jaari nag te mu gis ci tool bi lu mel ni ay golo yàq ko te gannaaw nga xam ne sëriñ bu mag bi da koo sasoon te sasam du booy mu ne booy bu dëng na génn ko lu yoneen ba bañ ak saa bakkan du nangu kenn mu ko fiy defaat kum man di doon dama génne ko moom am atam daa das yitteem gàddu yatam yitti leen ca bañ nooy nër kenn defatu ko mboolem ku lëj fii mbaa mu léej mu lijjanti ko mu ne jàdd yar ba ka jàdd rek limbaar ko ko mu ne jidd yar ba ka jàdd rek limbaar ko ko bañ a jàgg mokk ba mel ni der rek nég mu dër nee na mel ni ndar tuubaa ci yaatu ba ëpp ko dafa am lu am lu ci am lu way xam yépp xam gaa yi di lasraar nañ ma déglu te jàpp ko sëñ Abdou Lahad bi mu dikkee képp kuy bëri sëb noonu da jël juróom-ñeent bisub juróom-ñeent wala atum juróom-ñeent nga jëflante ko sab noonu noonu boo ko def da nga ko jekku sëñ bi ne daa jël ñetti juróom-ñeent ñetti juróom-ñeent la jël te nuuf mooy nuuf képp ku ñu xeex sab noonu sëñ Basiir bi nga ko wax léegi ci biir mu daba mu dajeeg tësin yoo xam ne sëñ Tuubaa da cee waxoon ni bu ñu àggee ci tësin dana am loo xam ne caay-caay gu am daa ko am dana doon dana feeñal jàmbaar joo xam ne dana génn mooy tas képp képp saay-saay bu nekk Touba mu génn Touba mu jël juróom mu jël ñetti juróom-ñeent bu doon sëy bu bu yemee ci noof sëy ba dee tas du barkeel léegi nag saay-saay si bi ñu dikkee nag Touba nag sëñ bi jox la ñetti noof ñu moo ñu génn dëkk bi dafa am lu ci am lu ci am lu way xam yëpp xam gaa yi di lasaraar nañ ma déglu jàpp ko mooy booy adat sëy nag ba noof rek mujj ca day daal di tas bii ñetti noof la ma wax la ko ci atum 4 21 le 10 8 weer wa doon septembre it ca la nee bërit de tasaare ko le 18 septembre 1981 mu ñetti noof yar benn yar boo ci dóor sam noon day bopp day mokk ca la génne noonu yi Tuubaa ñu génn dëkk bi waaw ci atum weer wa doon septembre it ca de tasaare ko bàyyi laat ci bis bii nag la waat ni na daal di deñ luy xeeti mooy luy xeeti po bu ma dégg ko ci dëkkub sëriñ Tuubaa bi jël naa saaba kan kaarante ko dana am de mbaate ma wutu ko mu dëppoog tasin so tasin ca la tas lu doon caaxaan ba tus de deseetu ko tuubaa bon ku ne génn ko daanañ fi tux daanañ fi naan daaloog dorog daanañ fi kartaka fecc bay sàllarañu ko ma indi la lay tax ànd bii ma a dëre nii Cheikh Abdoulaye daa def lu rëy ma waxaat la ko ca 76 la ne Seexu Jiili ñëwal aji lu ñu acce la ña fa yonnen ci xéwal nga asaale ko andil ko sëñ Touba nde Touba yi Madina loo ñaan mu am ngir yow sa soppe bi xam nga ko waajal te dem jël fukki béyee joxaale ko ni ko diine ji lu ci war ci njëg laaj leen ma ko Cheikh Abdou Khadir tontu ko ni ko cëf kalaa mboolem lu diine di sëflu maa ngi la sëf ma ko Cheikh Abdou Khadir dëgg fa lool santaat magam ñaanal magam feeñal mbëggam moom bég na ko fu mu toog di ñaan nee mus la ñaan mukk jiitalul Cheikh Abdoulaat ngir lim ko yéene xam na ko kii ñàkki caaxaan kii itam ñàkkoon kañaan kii njiit lu mat njiit kii di topp bu yéene ko diiru lu muy aj diiru lu muy aj bis bu ne dana xam la xew Cheikh Abdoulaat nee musta ndékki te laaju ko dana laaj la xew fa mu nekk laaj ñam àndaloon laa tën sa sax ba ja bàyyi ba wax lay dembe ko Cheikh Abdou benn baat lay tontu rek mooy sant nan lool lépp baax na ñu wax ko ko xoolal ma tey fonkool gile ak gii wegeel ku ko weg magam réew mii ñu nekk di xuuma ko ba mu ne ko aj gii mën na sëkk gannaaw ëllëg laay waaj te ñëw la la war lu nekk di def nga ko ca xër ak bëggug laat Abdoulaat gam def ca moom daa jël otoom wax bàcci géy ni mu andi ko ne ko bàcci kaay ni dem ndakaar nga jëlil ma nag Seex Abdu Xaadir lii ma wax na nga dégg ko na nga jaar ci yoon wow cël ma xaw wii romb ngaay booy del si bul jaar yoonu Cees wi nga teggi ko ndeke booba mbooloo maa ngi Cees def njooxe nag foo sànni bàtt ba rek mu tag ngir teertu ko Seex Abdu Xaadir bi mu jógee Màkka Sëñ Blaat dafa yónni sëñ bàcci génne ko demal jeli mako soy dem nak nga jaar ci yoni yoonu cilmaxa jaar ngaay soo wàññi ko nga jaarat nonu te bul jaar ties ñu ne ga ah, fofu yoni da guddidi mu ne sëñ bi laa len leen sëñ khadir mi dem ci yoni bi sallallahu alaihi wasallam yoni bi sol ko lam ko sol ba fees dell ak ngërëm kenn ku ko ñeek gis ku du man am amul dal ni bàcci génne na ko def ci gannaaw te boo xool mu def ko ci gannaaw te bu digge bu mu ko tije sëñ bi laa moo ko njëkk gis neen na sëñ khadir mi ci yoni bi sallallahu alaihi wasallam man rek mako wara ñeek gis lol tax noonu la ko defal kon ñoom gis ñoom ñaar nañ nañ melante won bañ dikkee ñaan dugg ci barabu sëñ tubaa lañ ci wëli sant sëñ tubaa ni ko day yaane woon day rabbi sa jib waltu kamil maanawaytu la daa tuubaa la tey bi ka tuub naa fii ka tuub yaana dun kon nag tey ji dem naa màkk ba ñëw barab bi maanda sëñ blaat ñu dugg ci biir am fa waxtu bañ génnee sëñ blaat ni maa ngi leen ñaan nag fii ba ñetti fan yi bu kenn nuyu nañ ko bàyyi mu nopp noppalu ba ajuma bu julli see ajuma ngeen soog ko siyaare sëñ Abdou Xaadir ba mu jullee ba noppi sëñ blaat ne ko keroom dañuy julli ba marché maanaam bedd yi daa dema dem ba marché romb ko sëñ Abdoulaye ni ko bu soobee yàlla naa yokk jumaa ji ca yokk jumaa ji fab milliard def kon sëñ ànd gis nga ko ànd ko àndut ak say bokk loolu sumb lu soo doxee saw doxee dana ñaaw hmm. sëñ Abdoulaye nag noonu def ki sës ci moom ca saaba yi ba nëgëri ci lañ mas a gis nit ku sës ci yow nga jàpp ndale fakkastal wala dara nga fab ko wuf koy sa kaw sëñ Abdou Khadir doon koo xam ne ku topp ndigal la mooy tam yéene ko lim yor lool kon bala ngaa mën dem da nga ànd ak say bokk Touba delal fa la ci geey reputal jawal cheikh abdoulaye bam ne jariñ demu songu ko ñom ñaar ci biir auto bobu dem Touba jawal ca barabu seen bay bi ñu nuyu ko sant ko am nañ fa waxtu di wax ci suuf leg leg ñu muñ leg leg ñu ñaan luñ ñaan borom bi mu nangu ko and bi le seen bay wax nak ni and bi le seen bay wax ni nak moy and bi te li war magak rakam ju nek ñu toge ko maga rak ju ne bu ñu toge li sama ak am nga yene ko ko xamni mo li la mo ta mo wof la kon and bi dana bax sëñ sëñ blad yemul fofu dama waxone le la dundu dund fe fee bi mu yoron muy dundu dundu euh, njabar gi dafa am bis mu ñew ci kër Abdou Khadir ni sëñ Abdou Khadir dundu bi fu mu toll maanaam addi ji la koy tuddee nga xam ñom ñep mo moo leen yor den dundal mu ko addi ji fu mu toll sëñ Abdou Khadir ne ko tuwaar kàlla fekk jeex na lu mat fukki fan ñu ne sëñ Abdou Khadir ah dund bi kat dafa mel ni na mën nga ko wax mu ne sëñ Abdou Lahat de bu sañoon lépp lu ab julit war a yanu moo ko yanu yanu bu diis bi ma ko ci tegal leen xalaatuma ko te nit ku samp kër ku ne yaa war a la ngay dunde waaye waroo koo wér ci kenn sëñ Abdou Lahat ba mu ko déggee daa jooy ni sëñ Abdou Khadir moo gore daa di jooy jooy métti daa dem ci bàyyi jiitu mi yor euh, magasin bi ni ko su dund bi de see fukki fan boo ñëwee bu ma nuyu taxawal ci mbooloo ma seen la rek xam ne dund bi daa jeex bu desee fukki fan soo ko defee ne li mu lay jural mooy da gudd fan bu yemal xeame dinaa la yóbbu àjjana ba noppi dikk soo ko wax soo ko wax sëñ Abdou Khadir xam noonu la sax woon ak moom waaw waaw loolu tax ma ne ma indi la gëm bàmbal sëriñ Abdul Ahad ak na ko seex Abdul Ahad woon du tiim mukk wenn ñam wuy daax ñam boobu doomi sëriñ bi di tiimu ko xam nga sëñu daat dane woon du tiim wenn ñam ci tubaa woo xam doomi sëriñ Tuubaa yi tiimu ko du lekk yenn naan goo xam doomi sëriñ Tuubaa yi naanu ko sëñu daat talaata ji mu nekk xalifa général di murit talaata ji ko jiitu bunt bu wéetee këriñ Saliou fa la toog ci jumaa ja boobu jumaa ji escalier rek la yokk nee na sëñu daat nee na talaata jooju daa jënd mburu wër wër juróomi dërëm yi mu jënd mu ci def amu ko mu moo ndox def ci moom la reere daggitu mburu la reere talaal ci desi muy xel xalifa général de Mouride ñu fa ñaari fukki boori juróom-ñett mu toll arafi Tuubaa lépp de yàpp ak ganaar na mu bég lool waaye bi mu bégee ba noppi mu tiitaat nee na mbégte mi bég jàpp ne moo ko moom nee na moom la dee ci moom ñaari fukki boori juróom-ñett yëpp dañ na génn kër gi ndax moom moo ko ndax bis ne que tey mburu laa reere kon nag bu ñu ma joxee lii dañ ma jottali loo ma jàttale ko ci jaboot gi waaye moom moo ko moo tax lu ñëw mu jàll ko motax mënu du tim men yenn ñam bo xamni ni gi timuko ko do war ben auto bo xamni ni waa ko suñ tuwaay waruñ ko njuga ke indi ko ab kaddu yàgg boo xam Afrique yëpp moko ko ci am mu denj ko ñetti wer njuga ñew ni ko ki di de man na genn mune ko dama war auto bo xamni bo ba dañ nan ke daal ràññiku mo leen yidi moy seen kilifa faaw dañ amal dama ko war njuga kebe da jindi juroom ñent auto indi ko sëñ bakki Madina si Mahadou Jabe sax am ci kon noonu la defoon dafa ànd ak i bokkam ni ngay ànd ak say bokk loo am a bokk ñoom su ko ñu yéen la la am moom moom lay leeral nii Cheikh Abdoulaat dañu woon du tiim mukk wenn ñam wuy dàq wow nag doomi sëriñ bi ti tiimu ko te du naan mukk am ndox mu tey wala ndox mu neex muy dàq moom la njabootu sëñ bi di naanu ko te du war otoot boo xam ne nii duñu war ko ñoom duñu gaari mukk ñu gis otoom ba mu ràññi ko li lee moo waral ba ko Babacar Kebe miy joxee Cadillac bu foor muy benn rek mu gaare ko ni ko day wutal seex ji li ak seex son yi bu lu ko moy di ñëw ci jumaa ji war ko jullee si ko njugo daa jëndaat ba mu mat ba doom yi la kenn desul ca la soog a war Cadillac ba rakk ya séq ko xam naa ni xawma xam nga sëñ euh, Babacar Kebe njugo nag wax dëgg yàlla day murid saadix mu su ko ñàkk wax lool Babacar Saddiq dafa defal yonte bi lu ne kon gëm gëm gëmoon yonte ba Babacar Kébé Ndiouga mi gëm na ko sëñ Tuubaa lam defoon ni def na ci lu man ndax defal na dooni sëñ Tuubaa yëpp moo tax ma ne xam naa ni xuma na Babacar mëli nag meloon ca rasulullah bañ naa Saddiq ba mu ràññ ko li ma xam de mooy sunu Babacar mi ñu naa Ndiouga Kébé mii ma xam la Saddiq gëmoon moom gëm na ko ngir Babacar mais daa joxoon doomam yoneen alalam itam lu mu bëgg jox ko mu lu mu bëgg laaj ko mu jox ko ko sunu Babacar kebe mii xelam la joxoon sëriñ Touba jëmam alalam yitam mu tasaare ko Cheikh Abdoulaat na ko jàpp jox ko sëriñ bi nag te sëriñ bi jébbal ko yonent bi mu mu ramm ko te njaboot gi lam daa jëf ci yiw la ca manqué woon ñu matal ko buur bee sàmm leen ba ñu joxe ko ma dikkaan ma dikkaat ci teeru seexu jili bi day magam ma dikkaat ci teertug seexu jiile mi lay magam ak it ba ñu génnee la bàyyi laat wax na ko seex abdulaat ca jumaa ja nag ca li yéene wax ni bu kenn siyaare ñetti fan ngeen may ko ko ba mu julli ajjuma nag ba noppi mu dallu nag la fa doon taraanga li jël keroog yi daale ko Cheikh Abdou Khadir lépp luy barkeelu nag la ko jox hadiya xolab magam ba seral na ko Cheikh Abdou Khadir ba mu jullee te jumaa ja xat Cheikh Abdou Laat ni ko baax na léegi ma yokk ko jël am mbayam léppam mu def ko ca laaj itam milliard bu teg nag genn wàll rek tax ko ko ñu ne déete mu ne daari kaamil it na am te na dend it ak Cheikh Abdou Khadir booru ko lu ci waay di def bala koo def na ko jox ndigal jox nit ki bopp di ràcc làmmiñ xuuma ko mu ne weer wi it mu ne weer wi it fu mu feeñee dem leen wax ko ko lu mu wax da laa wax lu mu waxul du déglu ko Cheikh Abdou Khadir jël sarihatu muy dundam mooy maye soxna yi tudd doom yële ngénte ko di jullee ñi faatu di sarxalit lu fi xew mu teew lu mu taw taw ak lu mu tàng-tàng mu róoñu ko seen ànd bii caw ñaw nañ defar caw nañ defar ci lu doone neen loolu nag sa réexatu bañ na ko day ñaari baat yi wala fi jafe nag xam naa ci li kébe nekkoon seen ànd bi ñaw nañ defar dañoo ñaw defar caw de far ci lu doone neen bu ñaari baat yi dañoo bokku nii bind waaye bokku nii firi seen ànd bi ñaw nañ defar caw nañ defar ci lu doone neen loolu nag sa réexatu bañ na ko kenn mësu la gis lu sa reexa digle ñu jàdd ko ñoo añ ci ndab lool ngor te reer ci ba ñiddu ko Cheikh Abdou Lahad dund ma indi la njàmbaarug ma indi la njàmbaarug Cheikh Abdou Lahad ak nangu goog Cheikh Abdou def na ko seetal ma marché occas bi léegi ni ñu fuyee woon ni ñu fayee woon ndigalal sëriñ bi le fuuy fakku marché bi bi ko sëñ bi toj dafa bàyyi ba sëñ Abdou Khadir dem ndar ndax nee na sëñ Abdou Khadir lu mu ko wax mu def ko te xam na ne bu koy def ci suba gi buñ fa demee ne ko bu mu toj marché bi dana ko def waaye daa bàyyi ba dem ndar ndax booba lu li ñu leen digal ñu bañ mun leen dama koy raxas ba mu ma defar ko indil leen ko ngeen mën ko jariñoo moo tax nag caatum 75 nag doon la 15 septembre it mu ne waat bërit tëj lépp ba mu jeex tëj lu ko tabaxaat ko ba mu baax set ñu baax rafetoog murit jox leen bitige ni leen lawoon ngeen moytu ko dama doon raxas ndab yii mu set may door a duy lu ma duy du dëy dana doy ko doylu te sàmm ko mun damaa raxas ndab yi ma set bañ sëb du xaas dikkee ñu wax ko dana leen Cheikh Abdou Lahad lu mu def lu ne day defar rek bu ngeen gisee mu toj dara yi day na ngeen xam ni day day day defar waaye moom du yàq lu mu def rek noonu la te fekk na nit ñi jëriñëwoon ba koo jaxaseeg moom ñëw nañ ni ko sëñ Abdou Khadir da daa am lu mu wax ka koy wax ba mu daanaka mu ne ko sëñ Abdou Khadir moom perkaal la sëñ Abdou la perkaal na loo ci gis muy taq bokku ci sëñ Abdou Khadir ab dollar la boo xam ne du soppi ku mukk bañ dee wax ko sëñ Abdou ba ñu wax ko sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir ni leen sëñ Abdou day li ma yéene xam naa ko ndax du yéene kenn lu dul naa leen lu yàlla dogal yi neex na ko daan leen euh, ndax am na bis day dafa yónni ay nit ni leen daa am yi may gas bu ngeen ne ngeen waxal ma ko sëñ Abdou Lahat sëñ Abdou Khadir ba ñëwee wax ko sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou daañu leen ah moom de daa baax lool ndax daal ay teewoo yi ñuy gas danga mu di ko yëgal ca la ko sëñ Abdou Lahat ne sëñ Abdou Khadir kilifa gu topp ci yow sus ci yow a yëg ci mbedd mi rek warut a yëgandoo waa mbedd mi ndax sëñ Abdou Khadir bu doxoon ba yàgg ñu ne gis ay teewoo yi ñuy gas ñu ne gu lee teewoo la téyegu ko nee na mën na koo gisee neneen te loolu du ko def ndax du ma tàngal xolu doomi Sëriñ Tuubaa kere ba mu fi jógee sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Khadir seeral yoo xam ne mosu ko seeral kenn sëñ Abdou Khadir fi sëñ Abdou Lahad jógee dani ñett a ngi nii yoo xam ne suñu borom jox na ko sëñ Abdou kenn fekk ko ci ñetti yi mooy ku ñu jox lu dul jeex nga mën ko joxe ba mu jeex ci bis bi nee na sëñ Abdou la ma sàmmee ñaareel bi mooy nee na ku kawe ñëpp ci saa yu baatin ba nag mën leen a féete suuf bay toog ci suuf ci sëñ Abdou Lahad ñettal bi nak neena moy li gëna jafe moy nit ko xamanteni dafa am xel mu reuy ba na fi amu fit seigne blad ñaar yëpp la baroon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë jëf